Cheikh Tidiane maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay baax a baax. voilà Cheikh Tidiane nga nekk secrétaire général bu fédération des agriculteurs du bassin arachidier actuellement est-ce que mën nañu wax ni hivernage bi euh, mi ngi dox bu baax ci seen côté yéen agriculteurs yi. waaw hivernage bi fi mu nekk nii presque ñu ngi ci njomportal li ñuy wax ne vraiment euh, euh, boo xoolee njeef a nga xam ne dégg foofu la ñuy pour. ñor pour mu ñor waaye problème bi mooy dañ traversé ñaari problème yoo xam ne yu yu xaw a la. Mm-hmm. parce que dañ traversé benn pause pluviométrique bu nga xam ne presque jël na a mois ñu boole kooku mu arrêté taw bi ñëw taw bu yu mag a mag a mag yu nga xam ne si nekk dafa am zone yu bëree bëri bëri ñu ñu koy wax ne. dégg nga taw yi dafa yàq foofu parce que taw bi bëri na taa na ci kaw tool yi am na ci culture yoo xam ne ñu ngi ba pare booleeg taw bi dégg nga am buy taw dégg nga maam di euh, euh, di di di di dem dafay yóbbaale yenn yenn yenn njief yi parce que euh, taw bi buy roogaraat di dem dafay yóbbaale yeneen njief yenn njief yi donc yooyu nekk ay jafe-jafe yu nga xam ne fi mu nekk nii xaw nay jaaxal certains paysans mais aussi boo xoolee pause pluviométrie bi aussi dafa nekk lu nga xam ne bu defee un mois dafa am yenn njie xeeti njief yu nga xam ne ñemewuñ maral ñooñu tim fi mu nekk nii ah, xamaguñ lan lay jur mais yaakaar nañ ne moom tim mën na am conséquence ci loolu parce que euh, mun nañ lompoñ même bu taw bi ñëwee ba yëkkatilaat leen mën na am muy lompoñ bu nga xam ne dégg nga maam dana causé ci rendement yi ñu muy jur ji ëllëg donc yooyu daal ñaari situation la yu nga xam ne moom jaaxal na monde rural waaw amul aussi à loolu yeneen jafe-jafe yoo xam ne actuellement yéen a ngi koy jànkonteel euh, bëggoon état bi taxaw si yéen baykat waaw jafe-jafe yi moom wax dëgg yàlla ren moom euh, si planification bi loolu jafe-jafe la yu mag la mm-hmm. euh, muy euh, indi semence beeg indi intrant yi loolu nag man dama koy wax tout le temps ne réew jàmm ko jig parce que coow yi nga gis ne nga maam mu nekkoon ci réew mi lëmbee réew mi xam naa mm-hmm. amoon na lu bëri état tawloon ko ba lu ci bëree bëree am sooxe sooxe. ba nga xam ne li si bëri tardé te yaakaar naa ne ñoom dañ planifié woon nekk mois de mai rek war nañoo nañ def yi. donc intention yi baaxoon na mais finalement dañ dem ba ci biir mu am ay retard yu mag a mag a loolu mun na indi ay conséquences aussi ñu nga xam ne kenn xamul nan lay nan lay nan lay jur. Hmm. donc yooyu daal mooy suñuy jafe-jafe. volonté nag euh, vraiment euh, euh, yooyu moom dañ ci war a góorgóorlu parce que politique agricole c'est un tout donc il faut les semences les intrants mais aussi à temps. donc loolu yëpp bu amul nag dafay indi ay problème mhm. eh, tey jii boo doon euh, évaluer gestion wu ministère de de l'agriculture de l'équipement rural par Aly Ngouille Ndiaye est-ce que mi ngi gérer ministère bi waaw wala déet euh, bu baax d'après yéen agriculteurs yi waaw Aly de li ma ci mën a wax mooy nit ku ubbeeku la ndax wax dëgg yàlla ñun ñi jëflante moom wax dëgg yàlla bu ñu bunta mu ubbil ñu ba pare jox ñu numéro téléphone am bu nga xam ne fu ñu ko ooyee dégg nga maam dina jël. Mm. loolu euh, aspect la bu nga xam ne lu am importance la parce que booy déglu nit ñi mun na am booy teg sa tànk da mën a da mën a am booy teg sa tànk bu baax mais ren moom yaakaar naa ne ak situation bi nu mel nii euh, peut-être euh, su ko jëlaatoon mën naa am. dina ko gën a mën a améliorer parce que ñun ñu ngi wax tout le temps situation bi fan la toll te loolu bu ko jëlee en compte dina am solo donc yaakaar naa ne daal Euh, xaw ma dana fi nekk leen euh, déwénam déet mais yaakaar naa ne su fi mënoon a nekk déwén yaakaar naa mun naa mu daf beneen jéego bu baax yi jéego. Hmm. Euh, tey jii pour yow lan moo gën a mën a suqali état bi lan la war a mën a def pour suqali li nga xamante ni moom mooy mbay mi fii ci Sénégal. mbay mi daal premier aspect mooy semence semence yi moom tant que réglé wuñ ko. te loolu ñu duñ di ci wax parce que semence yi. fi mu nekk nii lu mel ni gerte nga xam ne rendement yi fi nekk nii dara baaxul ci six cent kilos à sept cent kilos dégg nga maam te mu waroon a am quatre tonnes da ngay gis différence bi nu mu nu mu nu mu yaatoo donc loolu nag li ko waral mooy dañ ci nekk di tourner rek mu am ñu nga xam ne ñoo ci xoj état bi jàpp ci dégg nga maam te affaire mënut a évoluer mun waaw mënut a évoluer loolu moo indi problème bi ba nga xam ne dégg maam gerte moom bu ñu deful ndànk baykat yi danañ ko bàyyi parce que baykat koo gis borom kër la te dafay liggéey pour am dara léegi su gisee rendement yooyu baaxul. finalement dafay jublu ci yeneen spéculation yoo xam ne maanaam yeneen xeetu xeetu njeef yu nga xam ne mun nañu am rendement yu baax parce que boo demee ci mboq mi léegi mu ngi ci cinq tonnes à l'hectare donc cinq tonnes à l'hectare yooyu dafay am solo dégg nga maam ñun ñu euh, jublu ci man ci am lu nga xam ne ëllëg si biir bu nawet wàccee ñu mun ci yore suñu njaboot faj suñu soxla mais gerte moom buñ sàggoonul te defaruñ ko defaraat bu baax ba nga xam ne dinañ def reconstruction du capital semencier yaakaar naa ne euh, dana indi euh, nit ñi bàyyi ko te bu boobaa dégg nga moom du nekk bénéfique parce que gerte mooy euh, euh, euh, culture de rente maanaam mooy culture bi nga xam ne moom lañ xam ci weccee xaalis. Hmm. ak lan moo mën a suqali mbay mi Sénégal est-ce que jot si suuf yomb na si yéen waaw wala déet suuf su ngeen di. bàyyi moom hmm. suuf moom li li problème bi gën a mag mooy suuf parce que fi mu nekk nii boo koy xool ku mel ni man fi nekk nii maa ngi bëgg a liggéey aw ma liggéeyee damay loué suuf. Euh, te loolu war nañ ci wax nag dégg nga maam les euh, maires yi nga xam ne dégg nga maam ñoo nekk ci commune bi maam ñu xool les véritables acteurs mën leen di jox suuf parce que ñun gëmuñ leen mbay donc bu ñu joxee suuf duñ ko jaay duñ ko duñ ko tayle duñ ko leble dañ koy dañ koy liggéey donc loolu état moom war na ciy jox ba pare euh, ñu aménager lu mel ni vallée bi aménager bu mel ni dégg maam ay anambeeg yooyu dégg nga maam ak zone yi nga xam ne c'est des zones cultivables ñu jox ko baykat yi kii aussi lu ñuy wax euh, anida beeg yooyu ak euh, yeneen kii yi nga xam ne état buñ ko aménagé mais te gars yi occupé wuñ ko nañ ko jox baykat yi nga xam ne ñoom soxla nañ koy bay ñu bay ko je pense que ne loolu mooy foqali vraiment bay mi te loolu mooy tax nit ñi mën a liggéey liggéey bu nga xam ne dinañ mën a jot waaw dund gi cher na aussi lépp lu ñu jënd ci marché bi dafa cher tey jii pour yow lan moo ci solution Cheikh Tidiane. dund bi daal lenn mooy solution bi développer une bonne agricole nga xam ne danga maam da nga am rendement sur tous les niveaux boo demee fi nekk nii si maraîchage bi muy horticulture horticulture presque boo xoolee euh, rendement yi fi mu nekk nii dafa baax boo demee si soble bi léegi ñu ngi ci soixante à soixante dix ton à l'hectare dégg nga nga dem ci ceeb bi presque ñu ngi autosuffisant nga dem ci yëm pompiteer beeg euh, carotte bi dégg nga maam ñu ngi am quantité yi nga xam ne dégg nga maam c'est acceptable donc yooyu bu ñu ko defee ci yeneen spéculation yi nga xam ne dégg nga maam seen jiwu baax na ñu développé ko yaakaar naa ne dina mën dem mais suñ ko deful nag euh, buñ amee rendement yooyu bàyyi yaakaar di ko yóbbu bitim réew bu boobaa ñun ñi koy consommer au moins dana mën a yomb ci ñun mais su loolu amul je pense que ne euh, dafay tax nag ñu koy jëli ji bitim réew te looy jëli ji bitim réew te moom moomuloo prix bi nga xam ne moom nga koy jëlee ji bu boobaa bu ñëwee mun na cher te bu ñëwee ñi koy indi aussi dañ ciy teg ay bénéfice bu boobaa loolu mooy indi asaka dégg nga maam cher te wii bi di gën di compliqué rek. Euh, fooy jeexale ban euh, message ngay lancé président de la république par rapport ak agriculture fii ci Sénégal. waaw président la république daal li ma koy wax mooy mu ubbi ay bëtam ubbi ay noppam ubbi ay buroom dégg maam pour dégg nga di wax ak nit ñi parce que dafa am yoo xam ne moom ci boppam moo mën a jàkkaarloog wax ak ñoom nit ñi di ko wax li nga xam ne moom lañ gëm moom lañ xam te bu mu ci am benn arrière pensée nit ñi wax ko ñoom itam li nga xam ne amul lenn lu nga xam ne daf ciy miru lu nga xam ne ay waxu naxasaxandang lay doon bu boobaa au moins dina mën a del ay décisions yu baax loolu daal fi mu nekk mooy situation mais boo toogee dégg nga am gars yi di la wax mbir maa ngi dox mbir maa ngi dox te xamuloo ne mbir maa ngi dox bu boobaa danañ dem ba sa cappaandaw ba xaalis bi ngay dugal da nga maam ci lépp lu nga xam ne yéene la woon bootul du dem fenn te bu boobaa aussi je pense que ne dafay nekk ay jafe-jafe yu nga xam ne du bénéfique pour le Sénégal mais du bénéfique pour le monde rural mais aussi du bénéfique pour moom. merci Cheikh Tidiane Cissé. ci tontu yi merci may fàttali ni yow yaa jiite kuréel gi euh, di fédération des agriculteurs du bassin arachidier Cheikh Tidiane Cissé merci jërëjëf.